ok nañu ko defee comme niñ ko waxe vingt heures su jotee dajal sa bagage nga toogi seen kër raxas sa loxo nga toogi seen kër takkal sa marché té nga nga motu fu mbooloo di dajé mu baña law man dama tiit man dama lacc fu fébar bu jóge yombu la gëm way bu ko gëmul nak sa musiba la ñom ñang ci biir ñang ci biti ñom ñi ci dess ñangi daxanti man ma ngi tissoli man ma ngi saqat biir wi di metti ma melni ku girib yaram bi tang bàkkani xalé ma xam li ma dalé ma coronavirus wawil docteur jaru nga xel ñaar set si mbedd set sen bi keur fagaroo gën nag faju képp ku la jox loxo booy naka aju ñu respecté consigne buñ ko defee kenn du si gaañu nañu ko defee comme nuñ ko waxee vingt heures su jotee dajal sa bagage nga toogi seen kër raxas sa loxo nga toogi seen kër takkal sa marché te nga nga motu fu mbooloo di daje mu bañ